ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi di ngi fas yéene yëkkati sunu kàddu jëmale ci li nga xamante ni mooy xew-xew jamono. Euh, noo ngi sant yàlla bu baax nag di jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di sant Seexuna Si Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul waaye mbokk dama am lu ma bëgg a fàttali jullit ñi jullit ñi gëm yàlla ñi tey def seen kem kàttan ci leen yàlla sant lii xew alquran wax nañu ko dafa nañu woon awalaa yaraw na annahum yuftanuun fii kulli aamin marratan aw marratayni summa laa yatuubuun wallaahum yasakkuroon ba aay bi jeex kon yàlla dafa ne dangeen doon dox ni ay muuma ma nekk ci seen ginnaaw woo leen jël wenn xeer sànni leen ko wuyuwu leen ma ma jëlaat weneen xeer sànni leen ko ngeen taxaw gestu na ku ma ku ma sànni xeer yi ku may woo yàlla ne maa leen di woo maratat aw maratay ni ñu ne yàlla loo ñu dee mu ne suma laa yottoo boon léegi nag nit bu la woowee nga gestu ñu ne la kee moo lay woo koo war a waxal ku moom dañu doon dem rek di tëñëx tëñëxi yàlla woonu ne taxaw leen nu bañ mooy tawat yi fi jaar ak jafe-jafe yi fi mas a jaar yëpp lu mel ni Ebola ak leneen wuyuwuñu ko mu sànniwaat ni weneen xeer muy corona ñu taxaw ges ku ma sànni xeer yàlla na maa leen sànni maa leen woo yàlla loo ñu dee su ma laa yottoo boon fi ñu defee ba noppi nag wallaahu yasakkuroon kon mbokk yi. nanu dellu ci yàlla yàllaa nu woo ñu bëgg a wujji keneen déedéet li ma jaaxal nag mooy sunu état bii maanaam mbirum diine moom seen wax sax du ci jëm du ñu weesu sëriñ si ñaan leen pourquoi ñoom mënuñu ñaan ay jullit lañ d'accord sëriñ si ñoo ñu gën a yàlla waaye ñun tamit nañuy ñaan ay jullit lañ bu dee sellal nañ ñun suñu diggante ak suñu borom bu nu ñaanee sunu kilifa diine yi ñaan day gën a gaaw. waaye xanaa lan tëj leen fi ngeen di ñaane xanaa lan bu kenn dajaloo di ñaan xanaa lan mbokk yi Sénégal la ñu nekk donte li ñu ne ñi quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit lañ amul waaye xanaa lu gàtt gàtt am nañ quarante pour cent ci ay julit buñ delloo ci yàlla tey mbir mi dañ suba bu nu bëggee nag nu dajaloo jàng alxuraan mën naa nekk ndax ñoom nu ñu bëgg organiser mën nañ ko organiser lu Sénégal musul xam. musuñ ko def defloo nañ ko nit ñi te nit ñi ànd nañ ci kon nag nanu dem ci bërëbu jàmmukaay yàlla yi da dugal ci wàllu wér-gu-yaram nga ñu wax booy dugg ak la ca war a àndal boole ko jël ay ndaw takk der ñu taxaw nit ñi mën nañoo soree juróom benn sax wala lu ko ëpp te teewul danañ jàng alquran waaye fekk ñu jël suñ jumtukaay yi àdduna yi ba noppi nag waaye lan bu kenn dajaloo jàng alquran bu kenn dajaloo julli bu kenn dajale def nangam bu kenn dajale def nangam ba pare nag yow mi mi mi tere ne bu leen dajaloo yow yaa ngi dajaloo te yëgoo ko yow nanga nga ko yëgee mooy don yi ñuy yóbbu tey booloo fay nekk fa ñuy joxe don yi mbooloo fay nekk lépp lu ñuy def ay mbooloo lay doon. ba pare nun nun ñi nga xam te ne ñi ñi ngi am pas-pas ku néew ci suñu diine ñu tere nu ko te billaahi la ilaha illa huwa ba keroog muy sotti ba keroog muy sotti. kenn du ko dindi ku benn jaamu yàlla xaw ma ne fu muy nekk ci adduna waaye moo ko fi dindi ndax ñoom jaaxle nañ matukaay yi ñuy jël ci adduna ba léegi nii suñ ko jëloon jëm ci suñ borom jeex na ah nanu boole ñaari yi dañuy boole faju ak ñaan waaye ki gëm faju am na problème kese ki gëm ñaan kese am na problème dañuy boole ñaan ak faju walillahi junoodu samaawaati wal ardi yàlla nee na régiment yi ci kaw man a régiment yi ci suuf mën a mbokk yi lii du dindi yëf yi nanu ñaan yàlla tuub moo koy dindi waaye nag état bu Sénégal ba ma juddoo ba léegi musuma dégg daray diine luñ organisé dara noon daal ñoom topp nañ ci tubaab yi te tubaab yi amuñu luñ am tubaab duñu ay julit te gis ngeen bërki démb rek président état bi dem na toog ñuy jàng alxuraan te musta wax lu jëm ci diine ñoom sax dem nañ ba xam ne mbir mi ñaan a koy dindi waaye nun ne amoon ñaan démb nag dindi wuñ ko la preuve bi ñuy woo nit ñi nit ñi waxtaan ñoom ci réew mi ñu kilifa diine wala kilifa diine gu ñu woo day fekk ngay politique waaye yéen kilifa diine yu mag yi nga xam te ni yàlla rek leen ñor consulté wuñ leen boole leen sax seen programme kon nag yéen bu yi jàllee d' accord réew mi ñor nañ leen population bi ñor nañ la waaye seen jaxasoo ak ñi war ngeen ko seetaat parce que amul kenn kuñ ci consulter koo xamante ni yàlla rek tax ñu consulter la laajte la ci sa xalaat waaye dañuy consulter ñi nga xamante ni ñu nga ci euh, politique ba boole ko di ay kilifa diine lu baax la kenn diw ko waaye benn xalaat rek moo fi am mooy dellu ci yàlla su ma laa yotooboon suñu ko defut ah yàlla nag ku bëri yërmande la waaye yor na yor na yeneen virus yoo gën a garaaw bii munu sànni maanaam bii munu sànni tey